xooli oh, Arafat defetina mën na ne am Arafat defetina mën na ne waaye deuxième position Moubarak Arafat defetina mën a nan dem ca xale yële Arafat génn na Arafat génn na gars yi dawal nañu Arafat génn na Arafat génn na Arafat génn na gars yi amoon nañu 650 mètres waaye Moubarak mu avancé Moubarak avancé na Moubarak avancé na ànd na Moubarak avancé na ànd na ak Arafat waaye ñu ngi téye sant yàlla troisième position Moubarak léegi génn na Moubarak génn na day mel ne fas wu daanu tawféex la waaye Moubarak génn na fin la may nuru ak tawféex waaye Moubarak deuxième position sant yàlla troisième position am nañu 1000 mètres oh a jàpp na ko Moubarak jàpp na ko Moubarak jàpp na ko waaye Arafat ah Moubarak génn na Moubarak génn na waaye Arafat bañ na ah Arafat bañ arafat bañna arafat bañna saliw kobar kobar kobar samen ak daado saliw kobar dawal na arafat waaye ma ah, ah, ki nga xam na mooy Moubarak topp na ko waaye dawal nañu sant yàlla deuxième position dawal nañu sant yàlla Mamadou Ndiaye gajagaa ko war ñëw nañu arafat Jibi Ndiaye arafat Sidi Ndaw arafat Saliou Kobar arafat a ngi bi passé moo leen raw est dana leen rawaat 200 a ci des ah, arafat gën waaye door nañu sant yàlla sant yàlla ñëw na bu écrit bi ma réuni arafata ngi ñëw arafata ngi ñëw arafata ngi ñëw doon nañ sant yàlla arafat sant yàlla waaye arafat raw arafat sant yàlla arafat sant yàlla arafat sant yàlla arafat sant yàlla arafat sant yàlla arafat premier deuxième sant yàlla troisième mubarak ceeba course am xol yëpp fay neex yàkkamti heure bu jot ba ñëw ku dem seetaane ku toroxal fas mu rafaati jee taxaw ni la jàkk bul dem wàccoogal li ngay wute nga ci fas bu dimanche ceeba course am xol yëpp ay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem waay waay la ba liw nga ca kanam bu la seenu ca gannaaw mu am xol yëpp ay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaan jiitu nga leen sànni nga leen jël bu ndootul mi ba mu bàcc jóob nga naa naa doore waay bu dimanche ba course am xol yëpp ay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaane bu deuxième course am xol yëpp ay neex yaa kam ci heure bu jot ba ñor bu troisième course baa ngi noonu plus de deux ans yee ko war a daw mu nekk mille six cent cinquante mètres waaye di ma suwaat rek ki nga xam Papis Niang ci Perlefine doomi parati boobu nga xam ne nañu ba tàyyi fii ci hippodrome bu mag bi Perlefine moo jël grand prix première dame daaw fële ca Louga loo kon tey Perlefine yàgg nañoo bégal te masawu ko sa peex di masawu waa écriture gépp xam na Père daal bégal nañu ba tey ci deux ans yii di daw xam na ne moom moo yoroon affaire moo yoroon affaire bi kon Père Levine bu ko lii dalee ñun ñëpp ñu ngi masawu papis di masawu ñëpp premier euh, premier dame grand prix daaw ci lokoloo Père Levine a ko jël kon loolu dinañ ci ñëw. ah gars yi jóg nañu lam na Lam Toro wallaay gaay yi jóg nañu de la Lam tooro defati na manenam Lam Toro defati na manenam gaay yi dar nañ ko waaye Mama Sodo yow ñu ngi ko bank ci groupe bi toog na deuxième position waaye Lam Toro génn na Lam Toro génn na oh, ñu ngi nii tiin wit suñu bu ñu ñëwee dañuy dellu bu ñu ñëwee dañuy dellu waaye Lam Toro génn na écrit réew suma juumul yamar gaay ko war waaye Mama Soxna Dia wan ko deuxième na dawal bi sérieux waaye dawal nañu dawal nañu Rajab Junior dawal nañu Rajab Junior waaye Mama Soxna Dia ñëw na waaye dawal nañu fo Mam Penda dawal nañu ko mi ngi taxaw troisième position dawal nañu Mam Penda mi ngi taxaw troisième position waaye gars yi génn nañu gars ye génn nañu ba léegi Lamtooro moo génn ba léegi Lamtooro moo gën a écrire réew ñi ba léegi Rawtooro moo gën a écrire réew ñi gars yi dawal nañu. gars yi dawal nañu dawal nañu Lamtoro génn na am nañu 1000 mètres mu dese leen 650 mètres waaye Lamtoro jockey bi mi ngi mel ni ku jubilé yéeg na ci péage bi Lamtoro yéeg na ci péage bi Lamtoro yéeg na ci péage bi gars yi dar nañ ko waaye Lamtoro jockey bi mi ngi poñe rek toog ci lim yor baa ngi poñe rek toog ci lim yor waaye dawal nañu Mampenda Mampenda mi ngi nekk deuxième position dawal nañu Mampenda mi ngi nekk deuxième position. oh gars yi dawal nañu oh dawal nañu waaye Lam Tooro génn na waaye daal ba léegi ki génn mooy Lam Tooro moo génn Lam Tooro génn na. Lam Tooro génn na deuxième position Linguère Ngone Dieye troisième position Mampenda waaye gars yi wiire nañu waaye gars yi wiire nañu gars yi wiire nañu oh Lam Tooro ñëw na Lam Tooro Linguère Ngone Dieye Lam Tooro ngir Linguère Ngone Dieye lamtooro lingeer ngoone jeey lamtooro lingeer ngoone jeey lamtooro lingeer ngona jey ah lamtooro lingeer ngoone jeey lingeer ngona jey oh premier lingeer ngona jey deuxième toro troisième Mampenda